tey seen rakk wala seen mag def benn sot boo xam te ne rafetlu woo leen ko ngeen sol seen dàll ñëw ba kër Lac de ñëw waxtaan ak moom la de Guiers ñeme génn wax kàddu yu rafet yi ñu gis ni yéen ñi li ngeen def bu ko ñëpp di def jàpp naa ne dëkk bu nekk jàmm dafay am maa ngi lay maa lay fay Fatma di fay assistance bi toog fii di nuyu suma rakk Mathia Perala ak suma mag mbër mi toogoon fii léegi di nuyu sa caméraman yi ak ñëpp ñu ni seetaan di suivre émission bi quoi waaw di la wax ne gannaaw baatu onze billahi mina saytaan rajim di wax bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla musal nu ci saytaane parce que say na saytaane baaxul fenn waaw te lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm ci la lépp xàcc waaw jàmm moom ci la lépp xàcc parce que nit moom chaque jour daal saay boo yeewoo daal da ñaan yàlla am jàmm ndax boo amee jàmm yu bëri di nga la mucc waaw sorti bi kii def kalandaa def waaw kon li wax rek xam nga tey nettali xuloo sax day indi xuloo <laughs> te yooyu yëpp amul solo parce que soo gisee ni mu waxee ni ñi kalanda suñu rakk la kalanda ñun mënuñoo mag ñun suñu rakk la waaw mënuñoo mag ba tax na ay sorties kon ni nu ko waxee boo koy def ci ay réseaux sociaux maanaam ñii dañuy déggee nii ñii déggee nii waaw ba tax na ne boo ci wax daal wax ji daa war a nekk wax joo xam ne nii wax ju tegu la parce que bu dul woon dara sax même bu ay amoon sax yow booy wax da ngaa war a wax jàmm parce que loolu day yee fitna parce que soo waxalee nit loo xam ne nii moom dund ko wala defu ko day indi yaane ma maane la te yooyu ñu nekkul pour l'instant lu mu soxla. parce que ku xool démb barki démb acte bi ñu ci dox def ci jàmm ah toog parce que jàmm sax moo amoon foofu mais tey di nga am sa xarit sax boo xam ne nii da ngeen xam da ngeen di foowandoo defandoo te xam ne sa xarit dëgg la dalay bëgg da ngeen di sax gëj a gisante mais kon li ñuy wax rek ma ne li li ne ci xef yi li ne ci xol yi moo gën waaw parce que xol mooy nit ba tax na mën ngaa bu gis gëj a gisanteeg sa xarit mais fekk da ngeen di bëggante parce que jot moo amatul jamono ji ku nekk boo xëyee yaa ngi ci looy wut loo war a lekk loo war a naan loo war a dimbali sa njaboot parce que loolu day tax ne da ngay gëj a gisanteeg sax say nit ñi nga foondoo ba tax na am na yenn kàddu yoo xam ne nii du du du kàddu yoo xam ne nii kàddu yu lii la waa yu rafet parce que ku ko dégg rek day daan waa kon diw ak nii ak wala dii fekk am na ñoo xam ne amuñu xel sax bu ñu dégg leen naan waa kon kii est ce que li muy wax nii sax nit yónni wu ko muy wax lii day am ñi defee noonu naan est-ce kii sax li muy wax nii nit yónniwu ko muy wax loolu na am ñu xalaatee noonu parce que xalaat la rek sama xalaat ak sa xalaat bokkul ba tax na wax bu rafet rek moo am solo parce que géejawaay moom dafa nekk buntu làmb géejawaay rek ngay dégg bu boo fa reyee benn ginax sax ñëpp xam ne géejawaay rey nañ fa benn ginax parce que loolu loolu ñoo ko fa am loo xam ne nii maanaam ñi leen teg bët dafay bari parce que géejawaay booy xool maanaam ku danoo bokk mbalka looloo tax mu dee nii te bokk mbalka mi géejawaay chaque jour ci rafetal ak ci initiative yi rafet ay nit dañ koy copier sax di lii ci géejawaay waaw exemple bi mu la mën a jox mooy gin nga sunu max football yi ñuy def nii ay tournoi yoo xam ne nii ikiri géejawaay gi ba nga xam ne suba la final bi incha allah suba la final bi di dox yooyu suba ci samedi gi waaw pour jàmm am ak ay ni da ngay gis ay yeneen dëkk sax di ko di ko di ko copier di xool noonu naan pourtant war nañoo def li waa géejawaay di def ndax géejawaay dañoo weex dung ñoom lu ñu def ñëpp rek daf naan nii 100 pour cent bi ngay gis mu njëkk am géejawaay ko njëkk a def mu njëkk a def cent pour cent ci combat la de bii ak Modou Lo ci leen njëkkee def 100 pour cent géejawaay moo waral loon CNG dax def réglement ne ko bokkulul ikiri doo doo doo ñëw ci kimikaayam nga gis Modou Lo Lac de ñu tegoon benn ay force de l'ordre ci digg bi ñii lii loolu yëpp géejawaay moo ko waral nga xam ne géejawaay jàmm moo fi xaj bëgg ñëpp di def ne gis nga Aliou Seye 2 référence bi mu nekk géej waay waaw waaw gis nga amul waaw amul amul laaj di kii ngay gis muy wax lii sax Aliou Seye 2 nga moom bu ko gisee gis nga Aliou Seye 2 màkk la dëkk da koy war ne li ak neeg naa waroon lii ak lii kon kalaa suñu rakk nga suñu suñu xarit nga am na yoo xam ne soo koy génnee di ko lii danga war a diisoo ak ñun ak magu géejawaay yeeg yooyu diisoo ñoom war neen leen man maa ngi def lii sorti wala lii naa mais juum te du wees nag quoi da nga juum ci sorte bi génnal nga ne noo maa ngi jéggalu parce que juum ñëpp koy def yàlla rek moo dul juum mais doomu aadama mu ne day juum waaw sunu rakk la daal sunu xarit la ñu ngi lay ñaan loolu di ñaan yàlla jàmm am ci réew yëpp jàmm moom ci réew yëpp la war a am ci di nga am sa mbokk bu nekk fenn foo xam ne day tibb di indi bu amul jàmm doo neex la kon jàmm ci la lépp xaj waaw ñu ngi ñaan yàlla defal jàmm di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Madji Madji moom it mu nekk nit ku baax koo xamante ni man mosuma koo dégg ci sawaana moom jàmm rek lay dox macha allah euh, bala ñu tàggoo tàggoo bu dul tàqaliko waxtaan ak ki nga moom mooy Mathia Pereira ndax Mathia Pereira li may xeeb li ma xam bari na de uq yu sedd yu tàgg yëpp tey ndeysaan dafa xëy 8 la ma loolu mooy wan ni carrément nit ku baax la te pare na pour def lépp loo xamante ni rek si jàmm lay nekk géejawaay Pereira maa ngi lay lay fay. ginnaaw ma sante yàlla julli si yenente bi di ñaanal sama waajur bu góor fu mu tëdd yàlla na suuf weer si kawam waajur bu góor bu sàngoo suuf maa lay ñaanal fi nga tëdd yàlla na suuf weer si kaw di ñaanal suma waajur yàlla may leen gudd fan waajur bu jigéen yàlla may leen gudd fan ak wér gu yaram ñu bi maa ngi leen di ñaanal yàlla génneewaat leen bañ nekkaat seen njaboot ñu ci lalu hôpital yi tamit maa ngi leen fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen mbokk di la sant di sant Madji Madji mi xamante ne suma mag la suñu lépp la tey mun naa ne amuñu fayam coono gi muy daj ci géejuwaay laay wax sax du ma wax écrit waalo parce que écrit waalo ku nekk mën na seede tey boo amee combat boo gisul kenn Madji rek ngay gis muy ànd ak yow diin école ba boo ñëwee àjjuma kenn du ko entraîné boo ñëwee fekk ko fa mu soutenir la kon kooku dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm yokk ay fanam waaw li ci kanam lépp nekk ay bànneex waaw di sant sa caméraman yi moom suma waay la suma xarit la di santaat bu baax waa géejawaay bu baax a baax a baax di santaat waa géejawaay bu baax a a baax a baax parce que lii sax ñun bëgguñu ko yow xam nga ñàkk bëggoon lii moo tax démm ñëwuma ci affaire Malick bi te ku ne xam na ne keroog réunion bi maa ngi fa woon pour soutenir Malick Ngom naan ko félicitation waaw ñëpp kontaan nañ parce que lii moo lay wan ne yaru rek moo am sens parce que Malick du xaalis du alal du lenn lu mu jox nit ñi mais yaru ak tegginam tey moo ko may lii mu am tey kon dañuy dafa jox nit ñi bon exemple pour xam ne yaru rek mooy gàllaaju ndaw na ko gars yi fay ñu ngi la si nag bonne continuation yàlla na la yàlla leeral leer bi mm-hmm. yoon bi nga mottali ko xam nga ba li ñuy séntu si ba jox la ko gars yi gis ko ci yow tey du mën a sax lu waral wootaay bi ndax gis nañ ni Mathieu fan yëpp mi ngi dox ci li nga xamante ni tey géej géejawaay mel na meloon ñu gis ni tey Mathieu am lu ko metti sorte bi nga xamante ni Kalanda def na ko Mathieu am lu ko metti trop bi lan moo la ci non man comme lu ma wax Fatma Dia tey lii bañ koy def billaahi barki Serigne Babacar si yaa xaaruñu si woon ay micro xaaruñu si woon ay caméra xaaruñu si woon sax image génn barki alxuraanam karim parce que bañ koy def nekkul loo xamante ne problème la wala coow la wala détail du loolu parce que tey jii nii bu fekkoon ne Balla Gaye 2 dafa am benn wax bu mu jàppal la dëgër aw ma fitu indi la dëgër kër Balla Gaye te tàgguma Balla Gaye parce que maa ngi nekk ak Balla Gaye bu fekkoon am na benn mer bu mu mere la dëgër wala benn mer bu nekk xolam aw ma fitu bett Balla Gaye këram la dëgër mii nii bu fekkoon dafa am lu mu wax ci Balla Gaye wala lu ñaaw wala lu bon du am matiiru jug ne maa ngi dem ci Balla Gaye kon la dëgër moom xam nga ni dara nekkul ci xol mi dara dara dara la dëgër moo mel noonu pour nit ñi lan moo tax la dëgër jug dem kër yu Balla Gaye moonte la dëgër yëkkati naa ko ñu jug dem booy jinne ñu kenn wax ko ñu toog si biir mu nuyu papa booy jinne ñu toog yendu ci kër gi fu ñu nekk si jàmm kenn wax ko mais ñun dañoo toll ba kii dimension boo xamante ne Sénégalais yi bëgguñu jàmm da gis bu jàmm amee sax da gis nit ñi commencé ku nekk dugalaat sa grain de mel na ñun dañoo war a tàggoo wala dañoo war a xiiroo dañoo war a xaaroo ba génnee ay vidéo repéré ay yooyu maanaam mun na ñàkk man pour man Fatma Dia mmh. tey yow ak Madji Madji mmh. boo si jàmm tey suba ngeen jotee ngeen xasante mmh. ginnaaw suba dañuy ànd te ay nit taxaw di jaxase ay nit amul benn sens ban sens la la amal nga taxaw di yàq Balla Gaye wala nga taxaw di yàq euh, la de Guiers wala nga taxaw di yàq guy Gui ban sens la am ban njëriñ la la amal lu mu lay importer maanaam loolu nante sax mënu ko maanaam yow nga ne nante nga sa xel nga ne yow da ngay jéem jaxase kii wala kii wala kii loolu yar mu nante sax nanguwu ko yaa ngis maanaam lu rafet dafa rafet rek. maanaam tey ñaar ñi amuñu benn problème boo xamante ne am na seen diggante ñoom ñaar tey ba Balla de Guerre di dem kër euh, Balla Gaye shooting lañ jóge Lutte TV prési ñu waxtaan maa ngi koy nuy au passage prési nekk nit ku baax Pambay ba mu ñëwee écrit waalo ba tey gis nga tànk kanam rek ngay gis juboo la yi jàppal fii prési lu baax loo ko wax moo la si njëkk moo lay njëkk a soññ moo lay njëkk a karkaree sa téléphone bi du am jàmm maca foo ne maca jugal wala de guerre defal nii defal maanaam koo xamante ne yow lu baax rek ngay nga nga maanaam xam nga mënu ma wax si moom sax parce que président moom dafa ëpp dafa ëpp dayoo quoi. boo defee interview bu woo la président boo juumee moo lay njëkk woo président boo indee détail mu barke alxuraanam karim chaque jour mu woo Pape Mama pour Guédiawaye nekk si jàmm amul jour bu muy yeewu du woo Pape Mama Fall pour Guédiawaye nekk si jàmm amul te moonte liggéeyam la yor liggéeyam dafa saturé dafa xat mais bàyyi na temps am ngir Guédiawaye nekk si jàmm te boo gisee président écrit wàllu la mm-hmm. mais bu woowee guy gi benn appel mu jël. su woowee Balla gay su woowee ki nga xam ne kon kooku yàlla lañ koy bàyyil mu dox si ay jéego yu am solo taal otoom ñëw ñu dem mu taal otoom ñëw bund kër Balla Gaye ñu ànd dugg Balla Gaye di ko mbalak naa ko keroog romb nga mu nuyu woo ma na xàmmee wu ma la maa la gën a nekk bandi ñuy mbalagante affaire bi nekk loo xamante ne lu neex la amul benn problème ñu génn dem babi ji babi normal xam nga génn dem yaakaar naa ni amaatul débat bu nit waroon génn sorti mu nekk sorti bi nga xam ne tey bu la leeran lii su ma ko waxee day yëngalaat dëkk bi mm-hmm. non du ma ko wax parce que ñii nekk nañ ci jàmm ba pare te jàmm fa la lépp xej ci àdduna tey Kalanda sama frère la suma waay la man moom ñoo bokkoon classe mm. Kalanda si moom lañ jàngantee bëri ma ak moom dañoo génn récréation di bërintu man ak moom mm. CM2 mm. yaa ngi gis sama xarit la dañuy déggante maay numéro mu ngi sama numéro soo gisee tey lii am kenn bokk man journaliste bu nekk woo na ma ci lii pour interview ma ne la non non Malick Ngom bi looloo tax dew ma parce que bañ a dem nit ñi naan nii mais Kalanda dañ koo woo téléphone tey la dëgër trois appels jëlu mu vocal ko wuyu mu bind ko ok Alioune Seye waxi nopp te en fait defoon nga ko ci Alioune Seye Alioune Seye génnoon na ci ginnaawam nga def interview këram mu ñëw neexu ko waaw mu ñëw neexu ko la dëgër defoon nga interview biir saalam ba ngay def interview saalam yëgu ko parce que bopp bi moo doon métti mu naan effragant tëdd si néegam nga def kii Ahmed Yékini moo woo la dëgër ne ko sa saal baa ngi toj la dëggeer bu mu génnee doon dal fii si kaw kalanda ne ko waroo def lii sa kanam kon buñ boo génnaatee am noo waxee dañ naan la dëggeer moo la yónni te la dëggeer moo la yónni ñi gàtt xel ñëpp dañ naan dëgg la parce que biir saalam la defee woon interview bi te la dëggeer barki Serigne Babacar si bu ma yaakaar doxul ci détail la dëggeer mun na tooñ mun nga ko tooñ parce que nit la mais la dëggeer réyul ne nit baal ma àq ba ci ay détails yu ñàkk fayda yi écrit ba nii parce que ñun réunion écrit waalo bu ñu njëkk def ñëpp dañoo toog maa jéngi dafa jug nag yéen ñëpp baal na jox kenn ñun ñoo ko waroon def ñun ñoo waroon jug dem si la dageer na ko baal ñu àq mais réunion écrit waalo la moo jug taxaw ne yéen ñëpp baal àq la dageer loolu du feewam pour mu jug ne nit baal du problème pour mu jug yëkkati tànkam dem seeti nit na ko baal du problème dafa oyof toll ku ko jegewul nag noo xam ne dafa oyof moo xam mu toon moo xam ñu toon ko mais amul problème mu baal ma àq bëggul détail la dëgër bëggul détail détail da koy buddee est-ce que yaa ngi dégg maanaam nit boo amee nit ku mel noonu bu ko di di ko jéem a provoquer ay problème bu ko jéem a ay détail da ngay jéem a xool ay jote yu mu defi nga jéem a indi nekk moom si jàmm parce que man xam naa la dëgër amul benn problème la dëgër gis nga bu tëddee néegam bi am connexion jeex na ak crédit barke alxuraanam karim barke Serigne Babacar si pare na ci du débat ci nit du waxantu du ko du def nii Balla Gaye 2 ma nekk ak moom fréquenté ko nekk ak moom mu nekk même chose dinga nga ak moom 72 heures Balla Gaye du wax ci nit day mbalagante dóor kaf bëre yooyoo ko neex teg lido bi toog lido maanaam kenn amu ci li ngay yàqee nit. soo dérapé mu recadré boo dérapé mu recadré la barke alxuraanam karim la déggee kii Balla Gaye 2 boo jéemee wax si dangay da dégg mu ne la eh, bàyyi loolu jéem laa na wala ne looy wax ni barke Seydina Muhammad fekkee naa ko mu def ko ay nit defati lañ ko léegi est-ce diggante Balla Gaye 2 ak la de Guiers su amoon problème man dinaa am fit man mu ndaw mii ne damay jël Lac de Guiers di ko yóbbu kër Balla Gaye te tàgguwuma Balla kon problème amu fa Aziz Ndiaye géejawaay dañ ko war a sant gërëm ko parce que nit ku mel ni Aziz Ndiaye gox bu nekk bëgg nga ko am ku nekk fii Sénégal bëgg nga am nit ku mel ne Aziz Ndiaye muy représenté sa gox surtout Aziz Ndiaye dawul taayiwul chaque jour mu gëm loola ne géejawaay laa dëkk géejawaay laa bëgg di jàppale waa si lu nit yëg si lu nit yëgul kon tey amul lenn loo mën a génn wax Aziz Ndiaye lu dul lu baax parce que Sénégal yëpp boo ko yàqee sax Aziz Ndiaye defar na boppam ba pare maanaam moom lañu naan bari ko ci mbartal boo ko tegee loxo mu dem boo ko tegul loxo mu dem boo ci bañee ñaaw da nga koy teg loxo rek tey ñun Aziz sant ko rek la am ak gërëm ko mais pas ay nit génn di wax même chose yoo xamante ne soo ko waxee da nga naan lii la dëggeer a ko wax la dëggeer mosul mere Aziz Ndiaye ci kër àdduna barki Serigne Babacar si li ma lay wax nii Lac de ba ñuy waxtaan ma ca ma du xam sax du comprendre du sax xam la de mosul musul mere Aziz Ndiaye mosul mere Baye Ndiaye démb lay dégganteeg Baye Ndiaye téléphone liñ coow li bari yëpp Lac de Guiers ngi dégganteeg kon luy problème bi wala bëgguñu gaa yi ànd nekk benn liiru jaan dafa wax bay jooy si lii. barki Seydina Mohamed liiru bu la de Guiers ak Balla Gaye toog gisante wuñu liiru day bëgg a dof du nekk nit. barke alxuraanam karim jooy sax liiru jaan def na ko pour Lac de ak Balla Gaye ñu ànd te jotewuñu képp koo xamante ni ku baax nga géejawaay yaa ngi jéem a xool ñu géejawaay mag ñi àndee xale yi def saison bu baax gars yi dañoo am ay combat caatu daa defaal mu ngi combat ñaar bu ndaw macha reenu guy a ngi nii war a def open de presse am ah lundi gars yi ñoom ñëpp war a def benn saison boo xam ne dañuy gis mag yi ànd ñëpp ñëw ànd géejawaay jéem a nekk sax chose que fu mu nekkoon ñëpp ànd nekk benn géejawaay ñun ñëpp war nañoo bokk din bu ñu entraîné xëy suba ngoon gi euh, ku nekk dem sa école moonte defoon nañ ko fi di ñaanal la Kara ma fi Kara maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan kii fu mu tëdd yàlla na suufee ko am màjj xam ne lu muy wax ñetti oto la doon teg def ci essence amul écrit bi amul écrit bi écrit yëpp doon ñëw ñu fees dellu oto bi ñun ñoo kuule benn oto bi di dem Tiwaawoon Pël amul écrit bi amul écrit bi année boobu pay lañ jël géejawaay écrit yëpp a écurie Mor Fadam écurie Papa Kane écurie Balla Gaye écurie Ndiaga Sarr écurie Waalo oto yi day fees dell te Kara moo si def essence bu ñu paree mu jox ñu ku nekk nga jënd mburu day jënd ay 20 kilos mburu 30 yaa ngi gis mu neex mais léegi loolu ba mu amee ñëpp a kontaan 7 heures ñëpp a yàqante yeewu 6 heures du matin toog bi fii mbalagante bi kaf bi fii mais loolu pour man mooy géejawaay mais da ngay gis ay nit ñi nga xam ne yàkkamti nañ benn détail am bañ génn sorti wax lu gën a jaxase géejawaay ñu wax ko toogaat seen rukk te nag géejawaay ñun soxlawuñu loolu ñun soxlawuñu ay détails ñun soxlawuñu diwa fi wax lii diwa fi def lii diwa fi def lii ñu dañoo soxla ànd ànd nekk benn ànd bool dóorandoo xàccandoo dóorandoo parce que fii làmb géej la rek gaal gu nekk mun nga napp te sa benn gaal du laal sa morom géej waaye kan mooy bëri suñu biir kan moo mën a soxoree kenn fii ku mën a soxoree nit yokk sa bopp yow da ngay nit tey yow yaa ngi soxoree nit boo demee bëri suba ñu daal na yaa ngi def nii boo defee nii ko kon kay nga yokk sa bopp jéem a mais affaire yi maanaam tey foog esprit yi nit ñi teg ko maanaam si esprit wu grandeur ñu xam ne am na détails yoo xamante ne dañoo tardé boo leen toppee si ay détails da ngay tardé ñoom parce que ñoom ñu ñu blàmmandool tey ñooy lekk ay millions ñooy tabax si kër yi ñooy def na léegi boo toppee détails yu nit ñooñu da ngay suux si kàmm ngay dugg moo tax doo am benn problème pour tontu ay détails lu ñu amal sens mooy kalandaal na recradé waat ay waxam xool nu muy def nu muy waxtaanaatee gaa yi bañu ñu nga communiquer parce moomul kenn mais chaque jour booy communiquer la loo xamante ne soo waree génn di ko woo téléphone ne ko mbër lii laa bëgg ñu waxtaan lii ak lii bëri na la kat doxel nii defal nii defal nii après nga jël nga wax li nga bëgg a wax Alioune Seye 2 yéen a bokk koñ mun nga dox ba néegam ne ko Alioune lii a wax ak lii jox la ci conseil ndax yow booy déglu Alioune rek doo juum yow Alioune Seye rek boo koy déglu doo juum non dañuy waxante dëgg Alioune Seye ñun ñii ñëpp ku si def sorte boo war te def balaa ngaa woo la lan moo tax nga def lii lii nga def mooy lan kon kon nañ nañ jéem a defar quoi ñun ñëpp nañu ànd jàpp buum bi ñu defar xam nga ay combat la ñu am dañ defar ñëpp am ndam yàlla defal ñu ay ndam géejawaay nekkaat fu mu nekkoon xam nga di message final bi suba la. samedi mooy suba wala ginnaaw suba. Estade Ndiarème mooy écrit Mor Fadam ak écrit ñoom Jackson mooy écrit kii géejawaay mbooloo ñun ñooy gisee troisième place bi écrit Balla Gaye écrit Waalo. Hmm. yaa ngi gis di si woo képp ki nga xam ne kilifa nga géejawaay ñu ngi la siy woo parce que loolu yëpp pour géejawaay defaru la pour géejawaay en dem benn président ambulance mu ngi siy dox rôle bu am solo doublage mu ngi siy dox rôle bu am solo yaa ngi gis. ñoom ñu ngi siy dox loolu boo xamante ne maa ko laat dañoo yàq seen temps sax ndax géejawaay nekk benn. 50 cent kon ngala nañ leen jàppale. ci loolu oyof seen kaw. loolu rek la ñuy ñaan ko maa ngi lay jaajëfalaat bu baax maa ngi lay jaajëfal ma jaar di la si jaajëfal bu di kontaan si yow nag tamit yow def nga si ay rôle am solo parce que yow tamit guddeex bëccëg woo nga ma téléphone fekk dara xewagul dara fekk du Lac du Balla Gaye chaque guddi nga dem waaw ma ca ñii nan la ñuy def ba ñu ànd ma ñii bu ñu séparé woo duñ nekk yow doo nekk si jàmm man du nekk si jàmm chaque jour nga wax ma ko ma ne la billaahi dinañ ànd. waaw ma ne la billaahi dinañ ànd gis nga maanaam. role yooyu noonu maanaam ay rôle la yoo xamante ne nit ku bëgg lu baax rek moo koy def nit ku xool ne ñii waruñoo tàggali ko nga siy wax di si wax di ci wax di ci wax ba ànd tey nga kontaan ba loolu amee guddi gi da moo woo une heure du matin ba presque deux heures ngi wax ma wóor na yow lii kon kontaan nga ci am nga ci fierté te xam nga ba nga waxee interview dama la ne jarul interview ànd bii rek rafet parce que lu rafet nit ñi nañ ko rafetal rek parce que ñëpp nañ xam ne Aziz mooy kilifa bi ñu ànd ak Aziz Lac de Guiers dafa xam Aziz Ndiaye mooy kilifa bi Lac de Guiers comme dem na prison nekk na prison kilifa woo ma ne ma Lac su ma woowee téléphone ma jàppale ko ma ñëw ci Lac de Guiers visite wax ko ko ma wax ko turu kilifa mu dem hii ma ca bàyyil bàyyil bàyyil kooku Balla Gaye Tapha Tine la bis bu ñu yégee ne jàpp nañ ma jàppale na ma bu wax mun na jóg bu dee loolu mooy tax ma génn fii moom téye ko ak ma ñàkk sama yaay booy ak yàlla bu ma am dara sama àdduna expliqué na ma barke ah. laa ilaaha ma toog ma xam ni kii nit gënu ko gore quoi xoolal imagine fu mu nekk mu nekkee tolof tolof ah. nit na la soo ma woowee téléphone ma jàppale la ma ñëw wax ko mu ne ma du ko woo téléphone parce que Balla Gaye la tafaatin amal combat dafa am fu mu toll détail baaxul bàyyi ma toog fii géré te maa ngi ko fekk visite maanaam jikkoy la dëgër mënoo koo natt. mënoo koo natt waaw mënoo koo natt maanaam nit ku nit ku baax la quoi. maanaam nit ñi xamuñu ko. suñ continuer da ngay jooy yow kontaan nañ ci yow parce que nañ ko dagg am na yenn yoo xamante ne yaa ngi koy waxaat te kii jeex bu la continuer nga xam daa bari non pour ma xam ne la de guerre dafa bëgg Balla Gaye Balla Gaye kenn gënu koo bëgg la ñoom ñaar seen première attaque contact dóorante bopp la mbéj ay kërti kërti kër fee ñoom ñaar ku dàq ku gën a rafet ñoom ñaar Fallou ñoom ñaar ku gën a rafet maa ji ku gën a rafet ñoom ñaar ku dàq ku gën a bóolee dama leen di photo ñoom ñaar ñëpp externe ko dugal ko TikTok ah rafet na Balla Gaye kon rafetul laay instant mi leen di xaw a ray man moo ma jaaxal léegi dafa rajeunir te daa waane ah, ak waane ñi may woo bari na ba noppi nga maa wax loolu sax <laughs> en tout cas di leen jaajëfalaat bu baax a baax tax lañ doon suivre à travers Zarak Vision Kewel Info mu ko waxee rek du jàmm jàmm ko ndax jàmm mooy lépp ndax kon li ma wax ñun ñëpp benn lañ dañuy kaf dañuy ree parfois nag ñu ruube mais yàlla xam na ni am na journaliste yoo xamante ni lu ñu mën a ruube rubee ruube am na yenn cas yu sensible yoo xamante ni duñ ci dugg waaw man moom duma ci dugg kon li ma wax rek ma ca man maa fi dàq topp kaa man na yenn cas yoo xamante ni duma ci dugg di wax rek Lac de Guiers kon mu ko waxee moom suñu suñu lépp la parce que kon li nga gars yi daan géejuwaay mais man géejuwaay sama mag moo fi nekk mais man mbëri yëpp sumay waay lañ te ku ci am problème wala ku ci am nekk ci jafe-jafe fekk si naa la ci te ci micro lay waxee kon Lac de Guiers ak Balla ñoom ñaar ay waay lañ ngir yàlla war a suuli relation bi kon ni ko guy gi waxee rek ñoom ci boppam nañ xam ni carrément ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy lépp ñoom ñooy noyau bi ngir yàlla war a suuri muy Lac de Guiers muy Balla nañ jàppante te yàlla tax nañ jàppale ñu xool ci seen rakk yi ndax dañuy sonn ñoom ñaar bu ñu ak du ñu problème sax mais malentendu bu amee kenn du nekk à l'aise ndax ku toogal ak de guerre da ngay ragal toog ak Balla Gaye te Balla Gaye ko li mu wax nit ku baax la xol bu rafet la yor ndax Balla Gaye ñëpp lay conseillé man mii damay jël nit interview mu yëkkati téléphone am allo doom li nga def nii waroo ko woon def affaire yooyu Balla Gaye am na yu bari yoo xamante ni barki Mouhamed dama ko daraan ma bul def lii bul jël kii muy wax ci nit yi nangam nangam nangam kon donc nit ku baax la Lac de Guiers tamit pareillement nit ku baax la ndax baax moo wane lii yëpp di wax rek lu jàmm jàmm kon yàlla nañu yàlla may jàmm mais mention spéciale à Alioune Seye 2 kooku moom jàmm rek moom moom kon li Madji di wax nga ne fan la jógee. Màkk. <laughs> Paco. non si Màkk la jógee. nee naa la ñun bu ñu defee benn affaire boo xamante ne dañuy tiit ndax Paco. waaw daa baax ñun xam nga ne mënuñoo déréglé. suñu déréglé appelé la ñuy njëkk a xaar. baax. waaw.